siiw sax Hawa Signaté lañ ci àndal Hawa Signaté maa ngi lay nuyu di la ziar Hawa tey fan nga ñuy indi euh, fan nga ñu yóbbu tey ci Dakar ñu ngi koy seen sax. waaw soxna naata maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp tey nag boo leen gisee fi ma taxaw gis plaque bi sama ginnaaw xanaa war na leen a gindi ñu ne lan Karak. tey seen rubrique de quoi est-il le dafa ñëw fi nga xamante ni moo di Sicap Karak ngir ñu xamale leen fan la tur bi fan la jóge kan moo ko sanc ak kañ lañ ko sanc ñu tugg ci askan wi laaj leen ndax ñoom xam nañ fan la tur bi jóge Aliou ñu dem. papa jàmm ngeen fanaan euh, turu Karak bi fan la jóge ba xam-xam ngeen ko Karak bi fan la jóge tur bi. le mot Karak c'est un mot qui est un peu l'ancien ministre historien Alioune Diagne Mor. dafa ni woon moo karaak moo séeréer la mhm. mais c'est un peu déformé waaw muy tekki nii ñi nga xam ni dañu jógee fu sore mm. waaw man d'après renseignement am. waaw <laughs> ah, jërëjëf tonton. dafa bëri version nag ah. que ñun ñun quand on était tout jeune on entendait que Karak c'était le nom d'un d'un de la SICAP. waaw. bon il y a eu une version il y a eu d'autres il y a ni fi bëri woon crabe. crabe voilà ouais. ça on l'a on l'a souligné. Mhm. mais fii dafa bëri woon crabe bon euh, fii dafa bëri woon crabe bon dans le temps il paraît que dafa bëri woon crabe et tout avant que ñuy tabax cité bi. Mhm. c'était plein de crabe ah les gens disaient kii au fur à mesure ñuy ñuy wax bon c'est une mauvaise prononciation mu indi carac peut-être. mu indi carac merci beaucoup. je vous en prie je vous en prie. tur bi naka la. Saarata la. Saarata fi nga dëkk. waa Karak laa dëkk. Karak nga dëkk xam nga turu Karak bi fan la jógee. dëgg neex yàlla xaw ma ko. jotoo koo gëstu tamit. déedéet mosuma koo gëstu. sincèrement. Ah, bëgg nga ko xam tamit. <laughs> bëgg naa ko xam de. waaw d'accord da ngay seetaan TFM. incha allah bu neexee yàlla. <laughs> Aliou ñu dem. ci noonee nag la ñuy ñëw dugg fi nga xamante ne moo di kër chef de quartier bi laaj ko moom mi nga xamante ne mooy autorité bi fi nekk moom xëy na dinañu mën a ginde ci turu lan mooy Karak fan la tur bi jóge ak kañ lañ ko sànc Aïcha ñu dem Aliya topp ma waaw comme ni ñu leen ko waxee tantôt rek ni dañu ñëw seet si ki nga xamante ne moo di chef de quartier bi di monsieur Augustin Badiane moom nag mu mun gindi ñu tuuti ci turu Karak bi fan la jógee comme ni ñu koy waxee euh, sëñ bi Badiane ñoo ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di nuyu téléspectateurs yi di leen dalal euh, donc par rapport à votre question d'après suma gëstu Karak turu benn ingénieur u la woon. ingénieur u SICAP boobu moom moo tabax si quartier bi ñu tuddee ko ñu tuddee ko ko moom ci boppam mu doon karak donc euh, gëstu bu ma gëstu yu ma fu ma li ma mënti laaj yëpp fii la fii la may fii la may indi voilà boobu c'était en quelle moom ban année la daal di tabax cité bi. Euh, cité bi karak euh, les premiers habitants ñu ngi fi egg si en 1953. waaw comme ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xamante ne moo di chef de quartier bi nga xamante ne moo di monsieur Augustin Badiane moom lim ñu xamal ci fii historico Karak jóge maanaam tur bi moo tax ñu tuddee ko Karak kañ lañ ko sanc xam naa ni mbir leer la di leen jox euh, dig daje très prochainement ci beneen bërëb ci seen rubrique de quoi est-il le nom jërëjëf leer na naa ñu xaw a signaté merci beaucoup El Hadj Malick. <laughs> waaw Karak moom moo mooy ni mu ko waxee rek ah ingénieur bi ko tabax mi ngi bokkoon ci société immobilière du Cap-Vert muy euh, SICAP. 262 mm-hmm. euh, logements moom la fa tabaxoon euh, ñu daal di koy tuddee foofu c'était en 1953 bi ñu fa jógee itam mu nekk quartier bu nga xam ne ci juróom-ñetti quartier yi bokk ci commune Mermoz Sacré-Cœur mm-hmm. mooy quartier bu ci gën a ndaw ndax ñi ko ëmb mooy Baobab ak Amitié 3 mu jege lool loolu école police nekk i tamit barab bu nga xam ne Jean Paul Diaz ah, fa la yeewoo waaye tamit Diaz fils Bart moom moo nekkoon maire ba waaye ñu ràññee fa kenn ku nga xam ne nag ah toj na coupe du monde 2002. Ah, ah mooy euh, Henri Camara Henri Camara ah 99 ah, <laughs> sélections 31 buts 18 clubs 4 championnats kookoy l'enfant de Karak. absolument merci beaucoup El Hadj Malick Chérif nee na day dem Deskboard di jàngat man buy dem du ma fa bàyyi ndax man léegi damaa xarañ ci football <laughs> def na France Suisse. merci euh, Angleterre ak Grèce yëpp football na fa ak Sénégal. ñu yebal nit doxa bokk naa li si yëkkati naa sama loxo. <laughs> Lapin Flingueur. baax na Cheikh Tidiane Diaw Maam Fatou Ndoye nga bëgg a jël seen place ah. digganteeg sedd but ak ñoom nga xam ne ñun ñëpp a feccoon keroog. Euh. mu yóbbu ñu quart de finale. lu rëy sax kay. jaajëf ah, Henri Camara ñu ngi koy nuyu. merci beaucoup euh, Awa Signaté ci Karang di la jox di daje beneen yoon ci beneen quartier léegi dañuy jàll ci page de pub bi ginnaaw si ñu dalal ay Aïssatou Diop Fall